Mbengue daal di fi jóge yan kàddu yu seede ngay def ci moom. triste nouvelle ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu borom la ñuy jóge te foofu lañuy ñuy delluwaat waaye li li li li li metti toujours mooy un être cher koo xamante ni nii dafa cher ci yow boo ko côtoyé ko pendant plus de trente ans ngeen nekk benn révélation laa lay jox ñi nga xamante ne nii jege nañ ma xam nañ ma. day xool sama statut Gaston moo ma ñaanale woon jabar Gaston moo nekk suma papa Gaston moo nekk koo xam ne lu ma mus a nekk Gaston nekk na lu ma mus a dugg Gaston na ci mooy anecdote bi ma lay jox mooy hmm. doom bu am Gaston ko tudd jabar du ma takk Gaston moo la takk kon léegi mu sax ñu waaye nag bu ñu waxee leneen dafay mel ne dañuy ñànk ndax yàlla moo jëloon alalam. Mhm. waaye feebar bi yàgg na ci moom. seulement que waa këram ñun famille bi parce que si famille bi laay bokk damay tooñ sax makkat di ko wax ne ko man maay taaw da nga def usurpation de paternité Malick Thiandoum ñàkk na Malick Thiandoum ñàkk na waaw Malick Thiandoum doomu Gaston la Sénégal ñàkk na waaye man ñàkk na sama papa moo dem suma xarit. Mhm. ci ci feebaram bi ci feebaram bi ci digg feebaram mu feebar lool. Mhm. may maye sama doom mu ne kenn du ma ko nettali. ñi ñi ñi ñiy xool suma statut tey mun nañ ko ci xool dañuy gis ni que Gaston mi ngi ñëw mais il était souffrant ñu wax mu ne man du ma tànkam lu mukk Lamine Samba maa ngi nii jamono ji may wax ñëw maa ngi nii di droité ànd ak l'honorable député Bougazelli pour dem. TFM parce que munu ma sax dawal Bouga Jëli daf ma gis ne ma noonu non non Lamine instant yi mënuloo dawal ak condition yi nga nekk ne mënuloo dawal man maa lay dawalal yóbbu la TFM parce que damay def léegi hommage à Gaston Mbengue. Mhm. président directeur général woote. mais ni ñu ko defee ci rajo bi noonu lañ ko war a defee ci télé bi. Bouga Jëli xool ma xam ni man mii nekkuma mu dawal otoom ne ma Lamine maa lay yóbbu. parce que moment bi mënuñu dawal te fi ñu ko annoncé en plein lañ ñu ko annoncé en plein direct. lañ ko annoncé ni ñu Gaston dem c'est une pour le Sénégal c'est une pour le monde de la lutte yal na ko yàlla xaare àjjana warafal suñu jërëjëf jërëjëf euh, Lamine euh, Samba euh, moom itam nekk journaliste